ginnaaw bi ñu santee yàlla julit Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam euh, dañuy sant sunu ñaari wayjur li ñu may loolu mooy dañoo nekk ci keppaaru ñii suñ borom dogal nekk ay référence euh, Kaolack dañoo baaxoo am ay nit yoo xam ne dañuy génn dam toog Ndakaaru fàtte waa Kaolack mais ñii loolu dalul bi mu jógee Italie wóobu askan wi kon bu yàlla téelee jëlee ñun amuñu xaalis buñ ko jox amuñu dara lu mën ko rendre hommage mën ko fàttaliku am na famille am na ñu mbokkal ndey ak am na ay papa am na ay nijaay am na ku nekk mais damaa xam ne ñaar ñii ñooy buntam ndax ñoo defandoo lépp ñoo àndandoo lépp ma xalaat ko waxtaan seeg ma juuf mu am ci njàppandal ko am solo gum ci def am ci taxawaay bu am solo bu ci def am ci mat gu am sëkk gum ci def jël ci ay responsabilités am ànd ko procureur Adama Ndiaye nga xam ne gëj nañ gisante lu yàgg bi ko ma juf waxee nelawatuñu toogatuñu li ñu pour bëgg bis bi dox luñ ci contrôlé wuñ ma xoolu fan laa ko def lijjantiwuñ ci lan laa def moo tax tey lii sama fierté la dama am contentement ak mbégte ndax metti na trop tuubalaay gisatuñu ko mais ñii ñooy tuubalaay gisatuñ tuuba jaw mais ñii ñooy tuuba jaw fi fa la ñu teg seen tànk tey njàppandal bi Touba wane ginaaw ma juuf dafa uuf xalé yi dafa uuf njabot gi dafa sutural kër gi yóbbu ko fu ko Touba yóbbu lu toon loolu ko may moy disponibilité wa ñu gis ni bés bi tay ñi ko soxla woon bari na parce que sa digganteeg euh, waa Kaolack ñëpp xam nañ ko mais nga ni premier aljuma bi may def Touba jaw la koy la koy initier mu nek lo xamanteni bi ñi ko rafetlu bari na lool lool lool lan moo la may xel mi xalaat boobu. li may moy dafa don nit ku baax bay fi ñu baax. ñu am taxawaay bu am solo buñ am si réew mi am ko ci askan bi du benn ajuma bi rek ñeentu ajuma yëpp Serigne Touba Diaw lañ ci rendre hommage boo xoolee sànq waa kër Maolana Cheikh Ibrahim ñoo doon sikkar sànq fii dafa feesoon dell mais weeru koor la te liñ ci bëggoon am nañ ko mooy Sénégal ak Kaolack ñëpp xam ne Serigne Touba Diaw bàyyi fi ay yaafus Serigne Touba Diaw bàyyi fi ay ragal Serigne Touba Diaw bàyyi fi ñoo xamante bi ne dañoo fooye société bi da ko yëkkati. porté ko uuf njaboot gi ba société bi am lii mu am tey. macha allah kon gàcce ngaalaama Diouf mais gàcce ma procureur Adama Ndiaye. allah lii mu def nii tey mm-hmm. xam naa ne Touba Diaw moo tax mu def ko. Mm-hmm. ñu toog ci plateau di wax ci ay télé en direct ñu leen di seetaan kulere ak sàmm li nga xam ne moo doxoon diggantam ak Touba Laay. macha allah euh, alhamdulilah xam naa ci kanam tuuti dinaan jox tonton Mor Diarra mu wax ci lan la yàlla wax ci kolere ndaxte nit a ngi naan euh, kolere ginnaaw lay féete sa rakk sa jarbaat. am initiative bu mag bi nga xamante ni bii tey ñëpp ñoo ngi koy euh, rafetlu waaye bala ñoo jox tonton Mor Diarra dañuy jox ki nga xamante ne bii mooy. Euh, procureur Adama Ndiaye mooy allah moom xam naa sama papa lan ndax sama papa Adama Ndiaye la tudd euh, monsieur procureur bis bu mel ni tey lan lan nga sentir tey. seen sant gërëm ndax euh, ku nekk ci koñ bi ku nekk ci kawlak mu mënoon nga ko defal Touba Laye moom mu xalaat ko yàlla dogal ko moom mu def ko donc mu ak sant ko bés bi dama ne tey ni mu mel nii waroon na gën a ëpp lu fi nekk ci nit ndax Serigne Touba ba muy dund ci àdduna ñaxam jomb kenn di ko def ci ASC Manko di ko def ci daara ji di ko def ci hôpitaux yi di ko def maanaam di def social donc kooku bu fekkee ne daf ñoo won ginnaaw génn àdduna Touba Diaw Touba laay am initiative organiser ko lu mel nii vraiment je pense que ñëpp ñoo waroon tëj seen kër yi ñëw taxaw pour won Touba laay Touba ne ko jëf ju baax rek moo am solo parce que boo demee sa jëf ju baax ji nga doon def moom moo fi des Euh, bés bi nag bu melee nii c'est parce que dafa am ñu si jàpp mu commencé euh, ma Diouf parce que comme ni mu ko waxee ma Diouf xaritu tuubalaay la tuubalaay génn àdduna mu amoon yeneen opportunité dem defi leneen dem doxi ay business su boppam parce que am na ñeneen ñu ko soxla ay Europe ak ay feneen ku nekk di ko o mu ne man du ma goree di du ma goree di maanaam du ma ànd ak sëñ Touba ba mu jóge fi may bàyyi lim fi lim fi muy société jàppandal oil dem ci beneen secteur di fa liggéey loolu moo tax mu toog fi booba léegi yàlla dimbale ko nag ba mu fi toogee ba léegi bu fekkee ne sëriñ ah defoon na fukk moom def na fukk yeneen mu muy ñaar fukk loolu aussi bu ko amee c'est parce que dafay ànd ak rakku sëñ Touba Diaw muy Basirou Diaw mu wóolu ko def ko grand frère am lépp lu mu ne ko nañ ci dugg mu ànd seek moom avec confiance donc vraiment man comme ni mu ko waxee sama statut en tant que magistrat sax mayuma may toog ci ay mbooloo di wax di jël di jël parole mais sëñ Touba moo lii sëñ Touba ma jaral lii ma joge Dakar ñëw ànd ak sëñ ànd ak sëñu pour wax ne nañu taxawal bésu sëñ Touba et vraiment luñ ci def rek dem nañ ko bu jaroon ñu jël jaay suñu biir yëpp faral bés sëñ Touba dinañ ko def ndax sëñ Touba ji nañu lu ëpp lool ji nañu lu ëpp loolu donc vraiment loolu laa ci mën a waxagum pour la moment. macha allah El euh, Hadj Mor Diarra Thioune ñu gis ni euh, réew mu la gën a xale. moo la ëpp espoir réew mu mel ni ku am ku mel ni El Hadj Touba Laye Mbengue mii am ku mel ni procureur Adama Ndiaye ak nit ku ñaari ki nga xamante ni bii sunu digganteeg moom yaakaar naa ni lott nañ ci wax ci ci lim ñuy defal ay teranga réew mu mel ni am ay xale yu mel noonu lan ngay wax ci xale yu mel noonu ci réew mi. jërëjëf Ousseynou may sargal Touba ndax olof dafay wax ne. loo xam ne su amul woon ñaaw bu amee rafet nañ sant ki ko def te yàlla moo na xalaxal mawta wal hayaata kullu nafsin saayiqatil mawt kullu man alayha faani na man dee laa njëkk a bind ci dund waaye bakkan bu mos dund dana mos dee garab yi jaayu mu ne lu tooy dana wow kon lim njëkk a bind mooy dëgg ñuy ñaanal yaa raxmu tuuba jaw suñu borom xare ko àjjana te am nañ ci njort rafet benn jëfu jullit bu rafet bu baax dañu yóbbu nit àjjana nit dana dem yowmal xiyaam du fa jiital lu baax bàyyi fi xarit Bamu mu bàyyi fi kasten, bamu mu bamu teen mbaa mu xàllu yoon mbaa mu jëmbat garab nit ñi di xewlu yalla dafa koy xewal muy njotam te yowal xiyam mu tabal ko aljana te nak ca deug deug Touba lay bu de lu bax def na fi ci kawlo gi mu dëkk ci ñi mbokkaloon generation bu de ay morami bayam defon nako ci lak na ngeeram mu bayam te yalla mo ne wa ahbudu Allah. ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبالقربى واليتامى والمساكين دا نين ما جامو تو بوغين ما بوكال كين خمون نان ني عبد الله جامو كاتو يالا لا دا نين رافدا سين ديغنتك سين واجور كو فك سيرين مودو مباكي جاو فيمو توك خامنا توبا لاي يوبال نا غرمم يالا تك سي ايا بي ني وبالقربى اك دكندوي دكندوي نا موي ما جوف مي توك اك بروفيسور ادم نياي اك ياو Ba Laay mii nga xam ne ginnaaw bi mu demee yowal xiyaam mi ngi koy fàttali tey bu juróon doom muy góor mu tuddee ko Touba Laay Mbengue jërëjëf yal na yàlla guddal sa fan li nga def tuutul ci ay bokkam tuutul ci ay xaritam tuutul ci ay soppeem waaye tuutul ci kaw la ñu sant nag gërëm télé bii ñu may occasion tey ñu mën fee toog fu àdduna fi fu waay nekk ci àdduna bi di topp bés bi di la remercier bu baax Ndiaye ba Ndar euh, di kontaan ci yow waaye nga may ma rek ma remercier ma Diouf ndax dëkk boo fa dëkk boo fa juddoo yaroo fa war fa fasu ko tax dawal fa mbege football fa nawetaan génn dem Ndakaaru yàlla bette la xéewal sa liggéeyu ndey ak sa barke bay am na ñoo xam ne bu doon ñoom dañuy jël nationalité bu bees dadi fete dire féetee Ndakaaru waye defoko daga desu ko da ngaa ci Touba Kaolack gi nga desu desu ci tabango gi nga dëkkoon dellusiwaat ci Passoir gi nga dekon ne lii nga xamne mom lama yalla denk denkane la amna fu mu ndeke jaar ci samay loxot nako bok ak samay bok waye procureur jere xeex xex boko fekke bo setané sa da sot na sa waye jekku bo da sot nak dañu jekku sa waye waye sa téwayu tay bi ah ci ki ko def ñun ñor nañu ndax nag nit amul lu dul askanam te nag rusoowul askan wi mbokk am na jom am na fulla am na fayda bëgg na lu baax bëgg na Kaolack sama jarbaat alhamdulilah kooku nag euh, mooy El Hadj Mor Diarra Dioune nekk communicateur traditionnel nekk fii ci dëkk bi di kenn ci digganteeg euh, Touba lay méng waaye nag dañuy ñëw ci ki nga xamante ni bii li olof di wax naan koo xamul noo koy def nam la dafa tax yow lépp loo nekk rek da nga ci ànd ak jeune Kaolack yëpp ndax sa teraanga moo jiitu ci kon lépp lu la defar rek dan lay fay sa bor lan nga yëg tay ci bisu tay bi. waaw salaamaaleykum ñi fi daje ñëpp di kontaan lool nag ndax euh, li ñuy yëg mënuñ ko sax exprimer dañ koy sentir suñu biir xol parce que Touba Laye li mu def ñun la waroon. man sama frère bi Touré Ba Ndiaye ak Serigne Bakir ak njabootu sëñ Modou Mbacke Diaw yëpp mais Touba am initiative ne damay ñëw organiser guddi Seydina Mohamed jagleel ko Serigne Touba mi nga xam ne def na Fika ne def na Kaolack lu ne tey bu nekkoon mu ngi dund ba tey yaakaar naa ne Kaolack Sénégal sax dañ a xam dañ ciy sant di gërëm Serigne Touba laay di ci kontaan bu mu nekk xam naa ne xolam sedd na ci na bu baax baax a baax a baax a baax ndax meloon na si ñun ñoo xamante ne nii amul ci ñun sago bu newul sama kër mi ngi kër procureur dama daan dem sa ba naan kon maag procureur kan mooy aaw wala kan mooy ñetteel musuñoo tàqale ko ci dara te musuñ umpale ci dara xam nga donc loolu dafa nekk loo xamante ne tey yàlla boo ko dogal suñu diggante ñun ñett kii foo ma gis gis ko foo ma gis muy Kaolack muy Dakar foo ma gis muy sama wet teg ma foo xamante ne man sax dama da dama dama naan kii aw ma fayam te Serigne Touba ba ñuy door na lool lool lool lool ñu nekkoon ay xarit yoo xamante ñu ñu tàggatoo ko ci dara dañ koy ñaanal nak yàlla fa mu tëdd gënal ko gënal ko fa mu jógee ñaanal ko yàlla te di kontaan ci bés yu baax xam naa ne dinañ ko defal ay yeneen bés ak yeneen bés ak yeneen bés waaw di leen ñaanal yéen tamit yàlla defal leen teraanga daal leen sutura di leen sant bu baax a baax baax waaw wax yombul mais il fallait ñu wax ci lan ngay wax ci TV. waaw Kaolack TV moom initiative bi yaakaar naa ne am na télé yi fi yàgg mais yaakaar naa ne mosuñ jël initiative bi man maa ngi koy soog a gis Kaolack donc Kaolack TV ñu ngi leen di ñaanal ñoom it ñu yegg fay yeneen télé yi yegg waaw ndax xam naa ne dinañ fa yegg incha allah ndax lii moom initiative la te ñu ne ci ginnaaw euh, Kaolack TV ñu mel ni yow ay ay nit ñu am importance lañ nit ñu am solo ci dëkk bi te dañuy xalaat ndax yow génn nga dem nga Ndakaaru ñawaat donc am nga idée yoo xamante ne tey boo ko développé Kaolack eh, Alaaji Touba lan ngay wax ci ki nga xamante ne bii mooy euh, monsieur le procureur ak ki nga xamante ne bii mooy Alaaji Touba Diaw ban tàggoo ngay tàggoog ñoom. waaw. am loo xam ne suñ ko waxul si sëñ Touba. Mm-hmm. dafa mel ni bés bi day froisse. Mm-hmm. que sëñ Touba yàlla da ko dogal moom mu teel dem Europe. nekk Modou Modou. ñun ñëpp xam nañ temps yu xale Modou Modou nu mu meloon. maanaam boo nekkee Modou Modou mënoon nga toog Europe di lijjanti say affaire am sa benn jabar ñaari ñetti jabar vacance nga ñëw ba am dix mille may ko demaat sa yoon. Touba dafa toog ba benn instant mu xalaat ne moom kat xëy na am na lu mu réalisé mais li mu réalisé tant que bokk ko ñi mu xam ñi mu dëkkal. bokkal askan waa Maalum waa Kaolack waa Tabangoy waa Ndorong loolu amul sens. Bouba bàyyi lépp lu amoon Europe ñëw Sénégal ànd ak ma Diouf commencé di jóg ko daanu di jóg ko daanu di dem a dem a dem ba yàlla dimbale leen ñu am seen licence d'exploitation licence boobu tey moo tax jàppandal mu ngi employé mënu ma sax wax nombre macha allah ay nit ñoo xam ne ñu ngi ciy liggéey di si ñàkk di si yóbbu seen kër macha allah loolu sëñ Touba mënoon na rek ne sama boobu mais du ma ut di employé ay nit loolu bu amee tey ba koñ bi tey xale yi

liggéey boobu nag xëy na def ko jëlee ci ki ko tuddee muy sëñ Touba Cheikh Ahmadou Bamba liggéey ak jaamu yàlla la xam ak dimbale dimbale nit ñi xoolul ku am ak ku amul sëñ Touba dañ daan toog jël oto pour jënd ay saaku ceeb yu bëri di xool ay juma di xool ay ay ay ay daara yu ay taalibe nekk dem di ko fa bàyyi te kenn du xam maanaam am na bi mu génnee àdduna am na ñu bëri ñu ñëw di ma jooytu ne ma sëñ Touba pendant ñeent juróomi at moo yor seen dépense kër ñii ne ma pendant ñeent juróomi at moo yor seen xaru tabaski ainsi de suite ainsi de suite lu mel noonu nag bu suñu morom bàyyee fi ñun mënul lu wu ci moom li mu fi def ay xale lañ mais moom dañuy inspiré wu ci li mu def jéem a teg suñu tànk ci fi mu ko tegoon xëy na dina metti parce que yàlla mooy maye yàlla moo ko mayoon baax boobu mais man tax ma juuf surtout ma juuf moom tànk bi sëñ tegoon moom lay teg mu ngi Kaolack mu ngi Dakar mais amul kenn koo xam ne di nga am problème donc vraiment tey ñu ngi remercier encore buñ ñu mayee occasion ñu mën a wax ñu mën a wax témoignage bi nga xam ne moom lañ am si sëñ Touba télé bi nga xam ne aussi mooy couvrir événement bi ñu ngi leen di ñaanal parce que ñoom dañoo fekk si li sëñ Touba doon def sëñ Touba musul bëgg a am lenn loo xam ne indi wu ko kaw la donc bu ñëwee tey dañ leen di encouragé jëmale seen télé bi yàlla yóbbul leen ko lépp li ci li may terminé mooy que ne bépp jàpp bu ñu def bépp bu ñu fi tari ñam bu ñu fi jox nit yàlla na fekk sëñ Touba fa mu tëdd yàlla xaar aj probablement ma Diouf bii nga xam ne aussi moom la fi bàyyi pas jëf-jëf ak ci bokk ligne de conduite par rapport à la vie bi ñu bëgg a adopté yàlla dëgëral ko ba moom tam lépp lu mu yéenee Kaolack lépp lu mu yéenee Tabangoy ak Ndorong yàlla matal ko mu réaliser ko. présenté délégation bi nga àndal délégation bi ndaxte mel na ni am na benn soxla su nekk foofu suuf. waaw délégation bi euh, mënoon na ëpp lii mais comme dama ne ma juuf dañ koy def dans la simplicité parce que weeru koor lañ nekk moo tax kii suñu jigéen la aji faana borom këram suñu grand donc bëggul sax mais mu ànd ak ñun jigéenal ñu. bu jigéen la moom petite sœur ma Diouf la donc moom tam ñu ngi koy gërëm parce que bu ñu ñëwee Kaolack si moom la nekk moo ñuy toppatoo suñu soxna yi nekk Dakar duñu am benn problème parce que xam nañ ne bu ñu ñëwee bu ñu nekkee si moom ñu ngi ci ay loxo yu leer jërëjëf. jërëjëf Alaaji waaw Ousseyn li procureur wax moom laay confirmé. waaw wax Touba Laye Diaw te waxuñu njàppandal mm-hmm. nga social yi muy def benn loxo du tàccu man lu may wax rek dama koy seede ñaar ñi parce ñoo fi nekk kër ci bénéficié wu ci àdduna bi rawatina kenn mënu la wax nu mu toll. ba léegi fii may waxee gaw bi muy daw bu fi Touba nekkoon sax du ko mën a dawal. kii macha allah dafa bàyyi itam yëpp Europe comme li ko procureur waxee ñëw uniquement pour askan. xam naa ci dara ñëw sauver honneur lii bi ma ko waxee hésité wu ci dara procureur ñu ngi koy taale benn sërëm bu wàññeeku moom tamit mu boole lu ko neex ak lu ko naqari uniquement pour bis bi mën a jag kon Ousseyn man ñi uma seen fay. li may ñaan suñ borom dolli leen parce que taxawu nañ ma suturaal nañ ma dooleel nañ ma parce que direct Kaolack yombul yéen it Kaolack ngeen defal ma ci jàppandal lii yombul plus de dix jàngkat nga indi leen déplacé leen ci jàppandalu awma moyen bu ma ko defee mais calculé wuñ dara munu ma benn benn baat bu dul di leen ñaanal yàlla ma defaroon pour seen diggante ak Touba ni mu demee Ousseyn soo gisee ma def lii tey waaw dama xam ne ñoom ñett ñi taaxalikoo wuñ dëgg la jëmm ji dem na waaye xol yi ñu ngi fi ndeysaan njaboot gi ñu ngi fi taxawaay bii ñu am nii ci ci Touba ak société bi ñi bokkal ndey ak ak waa kër gi mën am bi sax mais pas-pas bi ak gëm-gëm gi ñu amuñu ko kon maa ngi leen di ñaanal yàlla macha allah lii président Modou Diouf moo ko moom bi procureur Adama Ndiaye moom moo tax tey ma def lii parce que xam naa ne ñoom ñett benn lañu franchement su ma amoon lu ëpp lii dinaa leen ko defal ndax gis naa taxawaay mais xam naa ne lii ci xol la jëm kon yàlla ngeen fi yàgg yàlla ngeen ko yàgg tax. ndeysaan ndeysaan ah alaaji xam naa xam naa après dañuy delluwaat ci ci direct bi rek ndax lay caam moo ngi ci kaw podium bi dañuy delluwaat ci direct bi. Wadani dañuy wàcc toog ci suuf ndaxte lay càmm nga ci direct ba kon grand moo Diouf nan moo كفاي صاب مها نيراني نيراني نيراني نيراني نيراني